jotaay bi malgré que ni sax biñ koy bëgg a jeexal ci nga mujj ñëw comment est-ce que voilà tu euh, trouves le débat et what you know I mean you know to be able to pass. Euh, mom euh, franchement lu am solo la euh, pour ñu xamanté ci suñu biir ci African Diaspora lii benn programme bi nga xamanté ni dañ ko wara def tout le temps black people within the diaspora it's very important for us to um, create projects like this. Um, if we do not do this, then we can't continue to to really implicate what it means to unite. Um, Pan Africanism The fanekilinga li the xamante ni dama kaa yàgg dund depuis bu ma uh, nekkoon um, papa mooy sénégalais te uh, ñoom ñaar ñoo ma jox fondation bi pour ma gën a xam sama culture ma gën a ñu mën a xamante ci suñu biir maanaam il faut ñu gën a góorgóorlu ci suñu système éducation bi ndax loolu suñ ko deful dañuy gën a am ay lënt lënt rek dañuy gën a am ay problème pour xale ñu gën a um, dem ci yoon bu so it's really important for us to really work together xam nga comme comme Youssou Ndour lu mu ko waxee rek xam nga am vision bi nga xamante ni bokk gis-gis bokk yéene lool suñ ko amee rek loolu dafay tax rek ñu mën a avancer loolu moo tax euh, danoo war a gën a góorlu ci jàng suñu histoire pas histoire lu xawoon kese. colonisation ou esclaves, affaire mais mais suñu avant ancien histoire africain Lors d'un ko on a parce que base loolu c'est fondation Nous suñ ko kon immeuble te fondation bi euh, immeuble bi day daanu n'est-ce pas te Nous mo nek li nga xamanteni ñu fondation bi il faut ñu suñu euh, gone xam daal ñu ñooy kan ci affaire Linguère affaire buur suñu culture ak loolu yëpp parce que nasaraan yi dañoo yàgg not suñu maam yi te il faut ñu continuer ci loolu il faut ñu continuer di gën a xamante suñu biir góorgóorlu di jàng di booloo nekk benn so mhm. fii tam American Dream dafa nekk li nga xamante ne mooy propaganda propaganda mooy euh, du dëgg. Euh, xam nga comme li ñu defee ay marketing dañuy wane ay affaire mu rafet mais lool du dëgg bi soo demee bitim réew nga foog foofu ngay tekki. doo fi tekki parce que soo nekkee nit bu ñuul te xamoo fan nga war a teg sa tànk tànk surtout ma nit ku ñuul ci systematic racism di nga sonn American dream c'est faux amul benn dream foofu African dream tamit pour noir américain yi ñu ñu war a xam African dream ju utopie parce que dañoo am colonisation fii am nañ li nga xamante ni doon ko war a gën a góorgóorlu mais am nañ culture mais yi mënuñu ñëw naan ok damay ñëw Afrique.

They're not going to survive if they don't know, have a background of culture history, black history. So it's very important for us to be able for within the diaspora to have that type of education in order for us that Afrocentric education of who we are so that when we do come to Africa, when we do come to Senegal or wherever part in Africa, we'll be able to know how to adapt with our brothers and sisters. But if you're just gonna come here blindsidedly, you're not gonna you're not gonna succeed. And that's something that's very imperative for us to to implement. Do they have the potential, you know, I mean, to break up the Western, you know, the European needs? Did it. They don't have, the reason why they don't have the potential is because um, they de depend too much on <laughs> the white people. We depend too much on our oppressors. How can we move forward if we depend on them? lan lan def pour avancer te ci dépendre toujours mënul nekk c'est pas possible il faut ñu nekk suñu yoon like we have to work on ourselves we have to believe in who we are te lu ma gën a métti ci ñi nga xamante ni ñoo ngi jiite réew mi duñu booloo bu baax ak jeunes yi ñu nekk fii parce que jeunes yi ak jeunesse yi ñoo ngi jàng de ñoo ngi xam seen bopp ñoo ngi gën a avancé comme ji hip hop comme affaire suñu cosaan ak ñu bëri ñi nga xamante ni ñoo ngi booloo pour ñu xamante ñu xam seen histoire mais su fekk ne gouvernement bi du ñuy jàppale ci fonds ci support economically financially lépp su fekk ni jàppaluñu comme noonu kon affaire bi dafay chaque. every time it's gonna it's gonna happen again and again. Like history is gonna be bound to repeat itself if we do not really educate who we are. Uh, and your your presentation. The Black Panther organization and Sunu Okay, so Sunu Chasan Youth Development Agency, Chasan Sunu Chasan, my our roots, our heritage. mu tàmbalee pour ñu gën a xamante suñu biir comme lu ma la waxoon avant samay waajur yi noir américain ak euh, sénégalais te dafa nekk li nga xamante ni euh, programme bi dañuy yóbbu dañuy jàngale xale yi pour ñu xam seen cosaan ñu xam ci éducation euh, éducation à travers l'art loolu dafa nekk li nga xamante ni c'est tellement dafa am solo comme lu muy def ak jeunesse yi comme Panther Party pour programme solo pour réussir parce que society bugg euh, ñu am affaire they don't want us to have programs like this they don't want us to implement projects when it comes to the youth education and knowing more of who we are. Because if we do implement something like that and we do have the support from our people on a whole international level, then we'll be able to prosper in a way where we can academically, um, um, culturally, artistically be able to express ourselves in ways that even um, society wouldn't even um, understand. That's something that's so powerful, so, so um, powerful. And we need to empower our youth to make better life choices through the arts, through the culture, and through history.